waaw kon baax ko ñu xoolal ko dem ba téye ko ma ñëw. waaw ngay tëj. mais lii lépp ñoo ñëwaat foofu xam nga fu ma bëgg a ñëw. foofu ngay tëj lii mais làmb amul. waaw kay Fall Ndiaye ne woon na daa bëgg a dugg ci loolu. Eh, eh, Fall Ndiaye woo ma. déedéet balaa ngaa wax Fall man nga koy may. waaw ko ñaan waaw non non vas-y. làmb amul parce que. attends ministre bi ministre bi le 23. laa ilaaha illallaah la joxe woon délai. waaw léegi ministre benn tukki na. waaw tey le 23. tey le 25. ah tey le la tey le 25 tey le 25. ah ministère laa taxaw tey keroog jour bi ñu leen dajalee. ne ko madame la ministre nga baal ma. defe naa jour après am nañu fii pencum làmb soo jàppee ni que yaa ngi defar yaa ngi nax sa bopp problème yi làmb di di amee fan yii yow yaay doon la source du vrai problème <laughs> booy passé fii takkal ma jol jol waaw buñ ko pee di ma yàq lu mel ni melengaan ma ñëw fii. gën a réitéré ñooñu garaawul non xoolal gën a réitéré samay propos xam nga da ma mhm. mhm. ministère waroon def. Ah, mooy le mandat du CRG xamoon nga nekk day jeex le 30 septembre. yow tu étais là. Mhm. donc pourquoi pas. dajale monde làmb ci ay semi séminaire yu ndaw. làmbkat d'ici deux mois mandat bi seen day jeex lan ngeen gis. lan mooy seen xalaat. est-ce que dañuy dem ay élection maanaam li mu proposé waa làmb. da ko doon proposé en avant. avant mais nga bàyyi ba jugé. ne gars yi dem leen ngeen waxtaan ngeen tànn dina ci gën a. parce que actuellement waa CNG ñu ngi xaar kayit bu génn d'ici demain. non ah tey ci guddi. wala suba pour ñu mën a régulariser pour ñu mën a xam ne booy bi war a tëgg suba. Badiane moo war a tëgg. Badiane ah, moo war a tëgg. Badiane kan moo war a tëgg dimanche. dimanche euh, Mbewaan. Mbewaan ah, léegi ñoom ñaar bu nu pertee seen i. Ah, li ci gën a maral. waaw mooy dem leen ngeen tànn. dem leen ngeen tànn ba pare ñëw leen ngeen voté j'ai pas compris cela dem leen ngeen tànn. ñetti dem leen ngeen tànn. non eh, eh, dafa ah, léegi ñoom yéen keroog bi ngeen génnee ca ministère ba. waaw am na ñoo xam dañ seen seen candidat wu ëpp carte yi ñu ko sànni. man leen man xeetu vote ngeen def. waaw non man eh, oh, vote oh, ok loolu aussi bi mu bëggoon jox jox waa làmb man soo woon moom jour bi mu ko proposé xëy lendemain gis réaction yi rek ci la waroon agir. Mhm. parce que dafa wax li muy wax la lendemain. promoteurs yi ànd ak président bi def conférence de presse. Mhm. promoteurs yi ànd ak président bi def conférence de presse. Mhm. ñii di génn di saa Gris Bordeaux ñi la génn si <laughs> attaqué Bira Sène maanaam loolu nga bëgg maintenir le suspense bu làmb jaxasoo mbaa mu am problème yaa ko jaxasee. buur foofu nag waa làmb ñoo fa wane ni. ñoom ci seen bopp jubóowuñu te duñ mus a jubóo. Mm. Mm-hmm. te dañoo toll nous sommes vingt et unième siècle dañoo wax ni dañoo war a yóbbu làmb ci fédération. loolu la ñu waxoon waaw waaw xaaral ma yeggale rek dañoo wax ne dañoo war a yóbbu làmb ci fédération kon dafa am mentalité yuy tax ñu mën a dem ci fédération dafa mën a am doxalin buy tax ñu mën a dem ci côté boobu làmb mënuñu a chaque fois a chaque fois que état war ñu woo wala ministre des sports wala ci rencontrer famille làmb coow am. Mhm. li ma ci li ma ciy wax mooy waa làmb ci seen bopp ñoom ñoo war a xam ñoom ñooy ñan làmb bu benn wax amee. ñëppay génnandoo wax. ñëppay waxandoo. ñëppay waxandoo ñi ci seen yoon newul sax. du coup considération du am. kilifa gi nga xamante ne ni moom moo nu yilif sax war noo mën a war a mën a tànn ki ko neex bu ko neexee mais dafa ñu jox responsabilité ne yéen waxtaan leen. damaa bëgg hmm. ngeen proposer ma. lamb am na amateur am na promoteur am na euh, euh, euh, manager te yooyu yëpp ay kuréel la. mu ne kuréel bu ci nekk nag ma proposé ñetti Fallou ne quitte pas kon kooku permettre nañu ñun ñu mën a liggéey ci suñu biir permettre nañu ñun ñu mën a choisir sax ki ñu bëgg mu jiite ñu mais wax bi bi ñu war a mooy làmb moo nar mënut a évoluer ak ñii nekk ci biir làmb. merci ñu Fallou njaay moom la ñu am au téléphone Fallou Fallou ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu. nga ñu ngi lay fay di nuyu sa invité yi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom nga seqal plateau bi chaque jour yéen a koy seq mooy ñoom pour Joël Baye Balla Modou Mbaye. waaw. di teewlu ci plateau bi am na solo trop. waaw ñu ngi wax waxtaan. di ñëw ci li nga xam ne moo xew léegi nii. ndax mhm. dèjà man léegi la ma bajaan woo avant ma bajaan di woo assisé ma ma njëkk woo. waaw xam ne ma dañoo annulé làmb yi war a am suba. ak ginnaaw suba. ak ginnaaw suba te yaakaar naa loolu lañ doon daw boo xoolee suñu ay discours yi ñu doon def yëpp. waaw ndax tey comme ni ko buur waxee léegi rek ministre c'est autorité te moom bi ñu toogee nee na moo am pouvoir pour fal moo am pouvoir pour tànn ki nga xam ne moom la moom moo ko neex pour mu jox ko CNG bi. Mhm. voilà tey yaakaar naa dañ ko jox jeunesse mooy ndaw ñi. Hmm. jox ko culture te culture mënuñu cee génn ndaw. Hmm. jox ko li nga xamante ne nii mooy sport. Hmm. kon tey jàpp naa ne li ñu ko jox yëpp boo xoolee ay ndaw ñoo koy def. waaw. kon tey dañ ko fal pour mu dimbale ndaw ñi pour xool na lay sauver situation fi réew mi toll ndax yaakaar naa moom ministère bi bi mu yor ci état bi. bokk na ministère yëpp importance ci pour jeunesse bi. waaw ah, yaakaar naa bu ñu Sénégal jeunesse moo ëpp fuuf. li nga xam ne moo fi nekk mooy yenn âge yi tey mën nañ ne âge jeunesse bi moo ëpp fuuf ñi nga xam ne ay ndaw la ñu. ñu mhm. dénk la ministre de la jeunesse dénk la sport. Mhm. tey ku la xam ne ne vingt litres ñoo war a bëri suba ginnaaw suba vingt litres ñoo war a bëri muy quarante litres. Mhm. tey quarante litres yëpp ku ne toog nga saañ pour ku ne dugg nga say dépense commandoor fay na police fay na sapeur joxe li mu war a joxe au niveau de CNG lépp kon jàpp naa ne tey ji du benn autorité moo war a toog rek wala ñu ne daa voyagé moo tax ñu war a annulé lambo quarante personnes yooyu ak ñaari promoteurs yi nga xam ne ñoo jël seen xaalis def ko ci ñu perte lépp mu nil noon du am dédommagement du am dara. Mhm. moom madame la ministre dañ koo dénk sport dañ koo dénk sport bi mais waxuñu ko pour mu ñëw lor waa sport wala mu gàllankoor leen. Mhm. ndax yaakaar naa na ne. CNG le 23 la leen jox délégation bi leen defoon le 23 lay jeex loolu xamoon na ko bu baax. waaw normalement. xam na ne làmb am na tey day am suba xam na ne làmb day am ginnaaw suba kon dafa am xam ne su amee jàpp naa ne yow ñëw pour dimbale CNG bi wala ñëw pour dimbale waa sport monde de la lutte wala sport en général. Mhm. ndax nag kuy dimbalee sport yaakaar naa doo gàllankoor li nga xam ne ay lutteurs lañ wala ngay gàllankoor li nga xam ne ay promoteurs lañ ay bailleurs xamul fu kenn du ko rafetlu dañ koy ñaawlu monde laa yëpp dañ ko ñaawlu. mais bu jëree monde laa mais est du yàq calendrier làmb ji. lu bari loo xamante ni. moom combat yi fi programme yëpp est-ce que dina mu ngi noonu tey xaadim nga jega bi mu toogee foofu ci plateau bi bëgg dem wax na ko. Hmm. Ah, tey père Bécaye gisuñu raison bu tax ñu war a annulé làmb amul. amul de. ndax tey ndax tey. yaakaar naa moom daf ne waa làmb daanu leen ah, même waa làmb su fekkee déggoo ñu moom moo tax waa làmb déggoo ñu waaw amoon na pouvoir wu tànn ki ko neex mu jiite CNG waa làmb amuñu problème mu kuy jiite CNG déedéet déedéet déedéet amuñu boobu problème amuñu boobu problème mais pourquoi allo Fallou dimanche ba lee làmb ba noppi bañ bi allo Fallou boobu jeexagul allo waa Fallou yow la ñuy déglu de da dem moo dégg ni non déggu ma maa ngi maa ngi maa leen waaw boo gisee ñiy laaj CNG bi yëpp ay nitu làmb lañu. képp famille la rek. ay mën nañ ne njëkk ci père Bécaye njabootu làmb la. Mhm. président bi seen fi nekkoon njabootu làmb la Malick Ngom mi ko bëgg laaj mi laaj tamit njabootu làmb la kon kan moo génn ci làmb. kenn. Mhm. te képp koo jël ci ñooñu dangay ngay doxal làmb continuer di ko dox comme ni ko doon doxalee. Mhm. kon jàpp naa ne tey gàcce la ci moom en tant que ministre ñu fal la même pas un an même pas six mois. Mmh. ngay arrêté activité lambon loolu dafa ñaaw trop ci deru ministre des sports. Mmh. Mmh. ndax moom bul fàtte ne bi mu toogee. ba li muy recevoir waa làmb pour affaire président CNG mësta recevoir làmb mësta lijjanti waa làmb. daa ñëw jël fonction di liggéey leen waa liggéey toog jàpp njàmburam. waa làmb tamit kenn critiqué ko kenn classé ko dañoo toog jàpp seen njàmbur ñoom di doxal seen activité. Mm-hmm. kon nag moom bëgg leen diviser benn ñaaree bi mooy muy arrêté activité làmb benn nit làmb du ko rafetlu. dëgg la képp ku rafetlu làmb ñoo ne tamit doo ko rafetlu te geste bi ñaaw na lool lool lool te lor na nag na xam ne lor na quarante famille yoo xam ne ñu ngi toog di semé day suba ak ginnaaw suba ay quarante famille. ñu waroon a jox seen reliquat ñu war a jox seen reliquat pour mën a dem ak fi mi toll ak fi dëkk bi toll ak ndaw ñi ni ñu bëggee gaal yi di dem fu leen kenn mënu leen téye jàpp naa li ñu xaar ci état wala li ñu xaar ci madame la ministre mooy mu xeexe ñu fexe nañu def ba jeunesse jeunesse boobu am njëriñu état bi. dëgg la yaakaar naa ku déglu son excellence président Bassirou Diomaye Faye. wax na wax joo xamante ni képp koy góor sa yaram war naa daw. Mhm. ndax ci dal la woote ci jàmm la woote ci calme la woote. ci calme la woote kon ñi ñi ñi dénk réew mi. amul xaaj ak seet muy seet kon ñi nga am ne ñoom la dénk. ñu nekk ay ministre ñoo ko war a ci mission bi mu leen jox pour ñu mën a dimbale autorité bi mu am jàmm dëkk bi stable. mais lii mu def nii stable dëkk stable ah. monde sport ah. stable lu làmb. baax na. mais mhm. ko mas a rafetlu du ko mas a cautionné. Fallou jërëjëf su fekkee ne nag moom amul sañ-sañu fal wala amul capacité fal nañ bàyyi ngir yàlla ñu jox keneen mu jiite ministère bi oh. ndax nag lii faiblesse am rek lay wone. dëgg la. bu leneen jërëjëf Père Becaye. Fallou ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm.